mu ne Modou mu benn victoire la am. Modou Lo ba muy ñëw ci làmb. waaw dafa ne ba muy ñëw ci làmb. xam nga lu mu indaale. ay drapeau ak ay supporters ak bërëb bu wóor ak fitam musul andi doole. ay petit combat ba ay combat ba tay jii ma waxal yow mu mus a bëreel ñëpp. ñoo ko lool laar su ko. ñii da leen door ñu këpp ñi mu dàq ji ñii mu bëre loo leen ba ñu waaye ba seen làmb laal suuf Ama Baldé du dossier complet wul wax leen ma mbër bu complet. mais nan ngeen gisee nan nga gisee un état de forme bu Ama Baldé indi indi na rapidité. waaw na poids am dafa mel ni dafa bëgg a jàkkaarloog Modou Lô. moom andi rapidité man rapidité maa ko moom dafa nekk si man ba may bëre ba léegi maa moom rapidité ba may bëre ba léegi Modou Lô moo nekk seul mbër boo xamante ni état bi mu yor. amul benn mbër bu ko mosoo yor si arène bi mosoo leen dégg naan doom mosoo leen dégg jël maas mosoo leen dégg leneen ak leneen te ba léegi état boobu la téye roi des arènes lu mu doon jumlooyee mag yi ba tey dina jubloo waat mag yi des xam nga mag yi ne woon nañ Modou Lo du mos a téye roi des arènes dañuy jum ba tey dama la ne eh, Modou Lo rek ñoom ñoo yenu bis ni affaire bi xoolal ñu yenu ko affaire bi nekk seen bopp ku ne di génn di wax mais bu lëndee média yi fii lay ëppee parcelle fii Indochine bàkkuy sell yi fii bàkkuy sell yi fii fii la affaire yi di xuyam xoyamee bu ñu mais loo gisee jàngatee dugg si Modou Lo biir Pikine jël na euh, ki nga xam ne mooy Eumeu seen daan ko ñaari ñaari avance yoo xam ne biir Pikine la mooy Ama Baldé ak Boy Niang lan moo waral Modou Lo à chaque fois rek dugg biir Pikine non lamb moo ko booleeg waa Pikine rek wala dafa ba jeexal Pikine non Pikine su ma ko mënee jeexal sax dama koy jeexal mais lamb moo ma boole ak ñoom te du si te du booy yooyu kese laay yem que yaa ngi may déglu ma la man instant yii Ama Baldé waxuma ay si préparation booy ñaa laa nekk si préparation booy ñaa si laa nekk. combat bi li ma si jaaxal mooy ni ñoom ñoom ñoom bu ñu yombalee combat bi yéen da a tiit yéen ñii di leen dëkk micro ndax ñoom xam nañu buy métti si ñoom lay méttee buy yomb fii lay neexee. Modou moo mun ma ëpp doole Ama Baldé doo dërëm xam nga Modou Lo bu baax xam nga terrain église ba ngay ñëw Jules Baldé moo la andi woon moo lay andiwaat ma dumawaat la daan la. mais boobu boobu ak léegi am na différence bu rëy. ban différence moo si nekk. change na poids am na expérience daan def ay mbëri mag. combat boobu noonu Modou Ama Baldé moo ëppoon volume Modou Lo dem na ngeen seet ko ngeen seetaan combat bu terrain église fii ba ñuy jóge fii ñu nag Modou dañoo dox parce que nekkul woon tamit Modou Lo avantage. à domicile. waaw bi à l'étranger. man boobu ba léegi damay fekk ji mooy recevoir boobu ba léegi damay fekk man. 3 des heures bi gars ma fekk si man mbapat lañ ma fekk ba léegi damay fekk ji ban combat la Modou mos a bëree arène parcelle. lan ne moo am ci yoonu stade bi. ñun xamuñu violence ñun xamuñu violence. violence xamuñu ko ñu waa parcelle ñun xamal la lay xam sangu ba nice. jënd billet bu seer. waaw ñëw instant ñëw xarañoo mu dégguñu xam nga ko ko du ma yóbbu métti daan ko Modou boo ko tuumoon daan ko baalu ma la ko man yaaram. waaw dama la ne ah wax ma waxal daan. samay ah. ak kan. ah moo ma 2006 bul ma yóbbu fii. Eumeu Sène mujj daal. bul ma ay waxu sax Eumeu Sène. am na ñu ma parce que ñooñu xamal la moo tax. ñooñu xamal la moo tax du ma wax seen wax. Ah. dama leen fekk si kaw daan leen. wax ma ak ay moromam. mais tey nan nga gisee euh, Balla na mën la deux fois tey mu nekk ci kaw Ama Baldé. kan Balla Gaye ñun Balla Gaye mosuñu ko di si lenn ak ba tey jii si lenn xam la moo waral lool xam nga lu waral lool lu ko dul di jënd Balla saa yu ñu daanee moo ñu soxla saa yu ñu daanee mu nekk à top moom bu nekkoon mu ne su Modou dara wala mu nekk malaaka yi lamb ji wala jinne lamb ji droit bi duñ ko nangu suñu dégg naa ko muy wax bay wax ay turu seen i seeni ak yooyu noonu nañ jël seen baay yi génnee leen ci affaire daal làmb surtout moment bii ñu demee ñoom seen baay da leen war di ñaanal di leen kurusal bañ di leen andiwaat ci làmb ba tey ñoom def ci làmb seen baay def nañ ko romb na dañ bàyyi loolu noonu di ci wax ay sunu baay sunu lii fii bu doon kuy sa baay nekk baayu mbër wala sa yaay nekk mbër comme am na loo xam boo ko di du jóge si yow. waaye Balla Gaye ak Ama Balde dafa ute sax li nekk si Balla Gaye nekkul si Ama Balde est-ce que comprendre nga bu dëgg neexee Balla moo dàq bëre Ama Balde moo ko long moo ko large loolu nekkul si Ama Balde. ama yaramu ña ndaxit lor ñun de barke ba Bamba jéemuñu liggéey ama lu doon ni karafal kat ay ni xaw ma nag moom ñun noppi nañu waaw noppi lan noppi amaat yi noppi na di lu des noppi nañu lan moo des dara lu dul dal day gaaw wala day yéex ça dépend ci moom amaa nee na roi bi la soxla bi alxuraan bu baax su ma amee. Ah? su ma amee. wut si Modou Modou door ko ko pan mu wàcc. yow loolu nga gis. billahi lazi laa ilaha illa da ngeen liggéey Modou Lo ci bopp combat bi wala. liggéey xam nañ ko ci loolu. ñus nañ ko loolu moom sa waay ñun ñus nañ ko ci Modou. da ngeen jàpp li ngeen def Eumeu Sène ngeen ko bëgg a def. dañ ko mën loolu dañ ko mën suñu for la. ama ama bu ma amee wuute ñu dootu ko defal. te bu conseil combat bi dootu ko defee. kon Ama bu mu attaqué. non bu conseil combat bi Modou lu ko duma duma yu métti su ma amee wu si Modou Modou dóor ko mu daal. yéeme na di ko xamee man la taal ànd man Modou ñu ànd lu mu mës a lu mu mës a bëre maa ko fecc. mais lan moo tax ngeen jékki-jékki rek jël dossier waa Pikine daan ko mën seen jël. Ama Baldé ñëw tamit jëlaat Boy Niang bëgg a jeexal Pikine lu waral lool. parce que mën rek mën rek mais Pikine bi ngeen dugg quoi bëgg a jeexal. waaw mooy mën rek. Ama ne bu ngeen teeloon jaas yoon jaas moom ngay ak seen monsieur. ah xooluñ ko sax. waaw yàgg na dinañ dëkku de. marqué normalement ay petit loolu war a bëri. mais Balla Gaye ci kaw euh, Ama tiitalu leen. Balla Gaye ci kaw Ama tiitalu leen. Balla Gaye daan na Modou Lo deux fois tey mu nekk ci kaw Ama tiitalu leen. mais li mu daanee Modou Lo est-ce que mën ko jox mën ko jox Ama. waaw. da wax ko. ma wax mu ne la bu yàggee xanaa kenn moo tax sax man damay problème bi loolu yëpp yëpp loolu dama la sax xam nga ni Modou combat bu yàgg arrangé combat bu yàgg arrangé parce que loolu ay fausse combat yëpp xam ngeen loolu yëpp gën a xam Modou ku ko xam xam ne combat bi dépassé cinq minutes dàpp Modou mën na ko gérer Modou na ngeen ko attaque pas la attaque physique nan ngeen ko waajal mooy waajal rek Modou sans combat sans dara Modou day am day am programme non sa mën na programme ñëw këram une heure du matin suba nga xam ne Modou sans problème sans dara day këram. ñu nga ci kaw ñu nga ci suuf Pagaye Mbaye lancé na déglu bépp artiste bu bëgg Pape Sarr. ah gis nañ ne mooy tëggal ki nga xam ne moo di Ama Baldé lan ngeen di waajal ci wàllum ambiance. mooy ah. pare rek. ça va ñun lépp li ñu def mooy maanaam Modou. Ah. soobee yàlla dina tëdd ni ko rafetlu ngeen moytu ak seen téléphone yeeg booy yi. d'accord. xaar xaar xaar allo. ngeen seen noonu mu sonn bële ah Petit Lo ma ngoog bi ngay gisee moom pare xamee ne moom lañu pare. waaw Ama dañ koy duma daan ko. Eh, ngari Ama. Modou Lo moo ko mën mille cent onze fois. Modou moo Ama da koy jàpp duma da koy teg foo teg. su ma ko teg yi ba léegi Modou mi ngi si préparation bi. waaw ñoom nag làmb ji ay affaire lañ ko teg. si gàllaaj lañ ko teg yow seen làmmiñ ñoom Pape ko teg ko affaire bi du loolu affaire da ngay liggéey am moo ko fit moo ko dàq bëre ah te moo ko mun te duma incha allah yàlla lu muy maye bu ko nanguwul bu soobee yàlla dañ koy duma daan ko bu soobee yàlla moo loolu war a waru ñëw pour xeex Ama wara pour bëre moom. mais ñun instant yii dañuy nañ lépp lu war a mais tamit doo war a dem guerre yi nga war dem guerre jéeg nga génnee ko naan moo ngi nii affaire bi du foofu mais boo leen gisee Modou ngeen xam ne ni saa pare na si côté mystique non affaire la du mystique ak affaire bi du mystique kese. gis nga loo am mystique te doo entraîné moom zéro yem. mais da nga jàpp ne Ama du entraîné wu. waaye dafa des non Ama dafa des. na bàyyi li muy def am na wala am na yu muy def ci suuf. bu ñu analyse dëgg da ngay bàyyi yi mu daan ñëwee ak yi nekk suuf yi def da ngay bàyyi. boo xoolee Ama sax da ngay xam ne ni physiquement pare wu ñun ay sportif lañ tamit ay athlète lañ. mais moom yombal na ko combat bi de. non parce que foofu yombal ko pression bi la dem ba antenne tu ko rek. dañ mu war bokk loolu kese la. loolu kese kese kese moo waral yi nii muy def waaw kaaw Balla Gaye dem ci kaaw kaaw Ama la non Balla Gaye moom du ñu ak Ama waaw loolu moom amul moom mais li mu yor li mu yoroon ba daan Modou moom moom du Ama moom tuddul Ama Omar Sakho la tudd ke Ama Baldé waaw ay ca jàpp nga ne mënu ko jox dara daal moom. dara lu ko a jox moom mi ngi si biir saako bi kay génnagul saako bi. moom na fexe jéem mu nekk rek. mu am important wala moo jàppale keneen. dama dégg benn waxu Balla ñu laaj ko yow ak Ama ku gën a garaaw mu ni am moo gën a garaaw fuuf. non Ama Balla Gaye daa waxul nii lu fi nekk mais Balla Gaye lu si làmb. Ama du ko ndox te da lay bàyyi ak làmb ji saa ñu yàgg nañ seetaan làmb ah, minutes yi ku tenir après da lay bàyyi ak làmb ji da lay bàyyi ak kon daal dama bëgg wax ne da nga bëgg wax ne Modou Lo kon combat bi di ñëw combat bi il faut mu yàgg loolu bëgg indi combat bi ça dépend xam nga mun nga ñëw nga préparer lii nga dem fekk fa lee mais ñun pare nañ si tous les plans. Ah, pare nañ si oh! ñoom buñ ko bëggee benn ñun ñoo leen ko fukki waaw. dëgg la ayca jërëjëf merci beaucoup waaw jërëjëf question yi jaar na damay bañ damay bañ ngeen damay bañ ngeen dóor ko quoi loolu laay bañ. waaw. maa ngi gudd gaale bi yaa fan. ani kii bi. Badou yow mu ah. wax Caravane Caravane ñëpp ah. mi ngi ah. bii ñëw waaw. waaw. ok daal. amaa indi na physique indi na rapidité. ba pare wàññi na poids bi. tey Modou Lo. waaw gars yi xam nga rek affaire bi moom wax rek mooy andi wax. Kamala Seyring Seyring. waaw bu